aca deuxième demi-finale baa ngi noonu deuxième demi-finale baa ngi noonu diggante Bakary Sadj ak Ngagne Sène Bakary Sadj ak Ngagne Sène eh Ngagne Sène war na ko ndombu de Ngagne Sène war na ko ndombu mu koy bay de eh, eh! arbitre nee na ba nga bëre Ngagne Sène daan na Bakary